seen seen MKTV daf koy def euh, weer wu nekk mu di ko amal ñaari yoon muy émission bi ñuy tuddee gàggantiku gàggantiku nag day tegtaloo ci ay laaj ak ay tontu ñuy dem ci ay boroomi xam-xam di leen laaj ay laaj yi diine yoo xam ne danañu mën a jariñ ci suñu mbiri àddina ak suñu mbiri àllaaxira ndax kenn ku nekk xam na ni euh, sunu borom tënk na jullit bi ngir mu jaar ci yoon woo xam ne mooy yéwénal ak dundam di yéwénal ëllëgam euh, xam ngeen ne bunt yi jàll yëpp ñi ngi gàggantikoo ci laab ba léegi ci la ñu des ndax mm, niñ koy waxee rek laab dafa doon mbir moo xam ne dañ koo war a settantal euh, gëstu ko xam ko bu baax ndax mooy tàmbali bépp jaamu yàlla bu yéwénul rek la cay topp du yéwén tey jii nag ñu war ñëw di gàggantikoo ci beneen bunt beneen mbir boo xam ne euh, jigéen ñi lay gën a yitteel waaye yitteel na góor ñi bu baaxit nag sax ndax ñoom ñaar rek ñoo ko seq muy euh, li ñuy wax al aydu wan nifaas maanaam wolof yi di ko wax mbërëg walla gis baax ak li ñuy wax euh, dàmmu nifaas mooy nit ki su amee doom deret ji nga xam ne moom lay gis ginnaawam loolu lépp nag danañu gàggantikoo tey ci xam lan mooy mbaax dëgg-dëgg lan mooy mbërëg ak lan mooy nifaas ak it lan mooy ab àtteem ci ci lislaam tax na kon ñu ñëw fii ci Daaru Salaam ndaam euh, fekk fi sunu mbokk mi sunu kilifa gi di sëriñ Mbakke Abdourahman euh, ngir mu indil ñu ay tegtal wala ay ay ay ay gàgganti ci bind boobu nga xam ne moom lañ koy laaj kon sëriñ wi ñu ngi lay nuyu te di la dalal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 Euh, bunt yi nga xam ne rawatina ñëpp la war a soxal ñëpp la war a soxal moo tax kon tey ñu fa yéene dugg ci bunt boobu noonu ko waxee ci buntu laab lañ nekk jamono yëpp laab na bokk na ca euh, li ñuy tuddee xayd ak nifaas muy euh, mbërëk noonu nga ko waxee ak meret yoo xam ne sunu mbokk jigéen faral di gaar waaye am atte yu bari ci aju ci lislaam kon nit ñi war koo xam ndax mën a xam fu ñu teg seen tànk bu ñëwee mhm. kon euh, euh, jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bi am solo bi ak leeral gi kon su ko defee dañu daal di dugg rek ci biir euh, gàggantiku bi maanaam sëñ bi buñ la doon laaj lan mooy mbërëg ak lan mooy meret ak lan mooy ab atteem ci ci lislaam waaw kay jërëjëf sëñ Abdou Lahad mbërëg ni ko waroom xam xam le deret la yoo xam dana ñëw doon deret damul xaalis xonq deret baa ko mel waaye dana nekk sufra mel na dëtt dana nekk it kudura doon lu mel ne deret ju nax xam ne day jëm jeng jëm ci ak ñuul lépp ay meloom waaye daal deret la ju baaxoo génn joo xam ne ci jigéen lay génn jigéen ju toll ci am doom maanaam jigéen joo xam ne àggagut fu mu amee doom du ko gis ku amagut juróom du ko gis bu gisee deret ju génn ci moom mu rëddi la waaye du li ñuy wax ku weesu am doom it doo ko gis muy ko am juróom-ñaar fukki at dootu ku gisati bu ko defee nag kon ku weesu juróom-ñeenti at te àggagul juróom-ñaar fukk deret ji génn ci moom euh, moom la ñuy tuddee bërëg ci sart yi muy mu génn ci anamuk wér nga xam ne doonut wéradi gu ko dal doonul gaañu gaañu buñ ko gaañ ndax mu génn te it diir bi muy diire du ëpp fukki fan ak juróom loolu la ñuy tuddee dereti mbërëg kon lu génn ci jigéen la euh, ñu tollu ci am doom ñaare bu ñu tollu fenn ñaare weer wu nekk dañ ko cay gis bu fekkee gàllankoor amul waaye nag ab yàggaayam daa am fu muy yem loolu sëriñ Abdou Lahad mooy mbërëg moom nag euh, moom ni faas wuñ danañ ci ñëw nañ leeral mbërëg bu noppi kon am na nu muy toll wax naa léegi ne la bu tàmbalee génn ba ba muy jeex du weesu fukki fan juróom waaye nag kon mën naa tàmbali benn fan fukki fan ak juróom waaye du ko weesu nag dafa am gën jaa néew am gën jaa bari gën jaa néewam mën naa doon genn toq jeex bu fekkee da ci jaamu yàlla ndax mbër dafa am at ci digg jaamu yàlla ndax julli bi day julli wala du julli genn toq génne woon ci moom benn yoon génnaatu day sangu dem julli ji waaye bu doon ci iddawu ñu ne ko na iddawu ñaati nanga nangami laab wala laablu boobaa moom faw diir bi mat bis mbaa ko jege kon bu ñu naan la gën jaay néewi mooy mën naa doon genn toq loolu bu dee ci jaamu yàlla waaye bu dee jigéen ju iddawu wala ku ñuy laablu genn toq doy masalan tey ñu ne soo laabee rek mën nañ la maye bu gis genn toq mu je daa dagg mu daan ne laab naa déedéet nañ xoor ba ngoon ba xam dara dana genn génnaatam déet loolu lu mat a lu te bu doon ci julli fu mu daggaree sangu dem julli ji waaye bu doon ci idda moom dagg rek ñu daal di koy faw mat bis maa lu ko jege kon bokkuñ gën jaa néewam ci jaamu yàlla ak bu dee ci idda ak lam su ko defee gën jaa bare mooy li ñuy wax du ëpp fukki fan ak juróom saa jigéen gisee deret muy dox di dox fukki fan ak juróom dëggut na dem faju ji tàmbali julleeg woor te xam ne moom lii daal doon bërëb. fukki fan ak juróom daal ko weesu mënu ko weesu su ko weesee rek leneen la dereti jàngoro lañ koy tuddee waaye nekkatul mbërëg euh, dañ ko xamee su ko defee nit ñi jigéen ñi nga xam ne dañuy gis baaxit bu nga doon séddale ñetti xeeti jigéen lañ ñeent ñeenti xeeti jigéen laa bëgg wax ki ci njëkk mooy ki ñuy tudde mubtada moo jigéen joo xam ne tey la mas a gis baax kooku baaxoon muy toll saa bu daggee rek benn fan ba fukki fan ak juróom toq ba fukki fan ak fu mu ci daggee rek mu xam ne moy baaxam kon mu amagul baax day door tàmbali kon kooku saa bu gisee dara day xool rek fu dara ji rek mu yom moo xam ne jeex na tey kooku mooy kenn ki ñaareel ki mooy ki ñuy tuddee mu'tada koo xam ne mas na koo gis mu doon nangami fan donte benn yoon la ko mos a gis mu doon ñetti fan jeex day jàpp ne moxtaada la ñetti fan mooy baaxam kooku day topp ñetti fan yooyu bu ñetti fan yi jeexee nag mën naa am ko ay weer saa bu ñetti fan jeexee mu set wenn weer ñëw ñetti fan jeex setu kooku dañ koy wax ne ko na ci dolli ñetti fan néggandiku ko ñetti fan yi mu ci dolli nag bu setee mu sangu bu setul mu sangu xam ne wér di la daal di xam ne kon baax bi tuxoo na ci ñetti fan doon léegi juróom-benn weneen weer wa ci des bu dikkee ci juróom-benn fan yi set mu sangu bu surtout xanaa tegal na tegaat ñetti fan loolu la ñuy wax naan da ci yokk ñetti fan fii ëppul fukki fan ak juróom kon loolu it mooy ki nga xam ne dafa baaxoo gis na topp baaxam su dara di ñëwee weesu baaxam mën na caa benn fan bu setee baax na bu setu mu dolli ñaar bu setu mu dolli ñett ñett yéen bu setee bu setu mu sangu kon daal maanaam fukki fan juróom yi ñuy wax tamit. maanaam bu koy dolli par ñetti fan lay dolli. par ñetti lay dolli. maanaam trois jours daal ci suñu. kaw baaxam. maanaam baax bi amoon. xam nga léeg-léeg moom day ñëw rek li mu baaxoo doon jeex. am bis nag mu ñëw weesu baax. Mm-hmm. kooku lañ wax naa ne ko na dolli ñetti fan. Mm-hmm. na dolli benn fan bu setee baax na bu sët mu dolli ñaar bu sët mu dolli ñett ñett na ki lay yem. Mm-hmm. te ñett yooyu muy dolli it ci kaw bu ko ci dollee bu mu ëpp fukki fan ak juróom. masalan koo xam ne baaxam fukki fan ak ñeent la woon kooku benn bis képp lay yokk. koo xam ne xam fukki fan ak ñett la woon ñaari bis lay doole ndax li muy dolli moom bu mu ci dolli loo xam ne boo ko ci dollee mu ëpp fukki fana ak ndax mbërëg du ëpp fukki fan ak juróom loolu it loolu important kon euh, mbokk yi maanaam ñi nga xam ne seen période. Mhm. buñ buñ gisee indisposé. Mhm. maanaam nga xam ne trois jours la daa doon. Mhm. trois jours yi su fekkee ne dolliku na dañuy dolliwaat di wàññi ba mat trois jours. di ko def di ko def waaye bu ñu bu ñu àggee ci quinze jours yi dañuy arrêté. waaw parce que tey weer weeru njëkk bi mu doon ñett ñetti fan laan doon. Mm-hmm. am wenn weer mu ñëw dolliku. Mm-hmm. na ci teg ñetti fan. dem sangu ji daal di jàpp ne baax ba mu njëkkoon a am xëy na ñetti fan la woon léegi day soppaliku nekk baaxu juróom-benn fan. Mm-hmm. mën naa yeb juróom-benn ya mën naa dem yàgg mu dikkati juróom-benn ya mu weesu ko kooku nañ ko waxati na yokkaat ñetti fan bu setee baax na bu setul mu sangu ji mu kooku mooy ñaareel ki mooy ki baaxoo ñetteel bi mooy ko ëmb ki téere fiq yi dañuy wax ne nit mën na ëmb ba noppi di gis baax donte loolu nag yi am na yeneen gis-gis waaye daal ci njàng fiq mooy dana jigéen mën na ëmb di gis baax su ko defee bu ëmbagul bu bu ëmbagul ñaari weer moo ko ëmbul ñooy am baaxam lay topp bu bu setee baax na bu setu mu teg ñetti fan. bu rombul deux mois. waaw bu xasee romb deux mois nag dugg ñetteelu weeram su gisatee baax nee nañ mën naa weesu fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ñaar fukki na fa àgg waaye kooku nag mu ñaar fukki ni bu xasee jot bu jeexee day sangu ci moom bu dee ba am jur ba dugg juróom-benneel weeram nga xam ne ëmb bi na juróom weer ba dugg juróom-benneel bu gis tey baax nee nañ mën naa dem ba weer donte nag ñooñu moom li ñuy gis baax bëriwul waaye ñoom la téere yi fekk moo ci nekk. kon daal ñuy moom au lieu que 15 weer lay un mois lay waaw ki nga xam ne ni ëmb bi dem na ba tab bi juróom-benneel weeram waaye bu ëmb bi amagul ñaari weer moo du wees fukki fan ak juróom moom ëmb diggante ñetti weer ba juróom nag la ñu wax ne mën naa dem ba ñaar fukk fan bu dee xasee dugg juróom benn weer bu gëstee baax mën naa dem ba weer loolu mooy eh, ñetteelu kiib mbërëg ki door a tàmbali ki ëmb ak ki baaxoo mu ñett mu des kenn koo xam ne baaxam dafa normalu moom daal baaxam ñeenti fan la waaye du doon ñeenti fan yu tegaloo man na ko gis tey benn fan ci weeru jumaada saaniya ñaareel fan ba gisu ko ñetteel ba gisu ko ñenteel mu gisaat ko. xëy day jëlal. waaw kooku bis yi muy gis lay wañ moom lay wàññi bu mat baaxam kooku fi ne mën na ko gis lu ëpp fan ak juróom waaye nag bis yi gis dong lay wàññi moom bis mu ëpp fan ak juróom masalan boo ko gisoon benn fan gis ko la cinq gis ko la huit gis ko le douze gis ko le quinze yooyu lépp juróomi fan la. Hmm. lu diggante bi soree soree. moom day day jàpp ay fanam day jàpp bu fekkee ne diggante bi du fukki fan ak juróom rek. su soree ji day jàpp ne bii mbërëg mu njëkk moom moo mooy dog dogee. Hmm, hmm, ba ba mu ci baax masalan ki nga baax am baaxam fan la woon ci weer wi dara ji dagg mu gis ko benn fan ñaareel ñetteel gisu ko ñeenteel la ko gis ñeenteel boobu mooy ñaareel fanam juróom juróom gis ko juróom ñaareelu fan la ko gis moo ñetteelu fanam nga xam ne fukki fan yi moom mën na mën na ko ci gis ñeenti fan dong. waaye diggante boobu du day julli wala du. waaw saabu saabu setee nag bis bi ko gisut day sangu du julli moom. diggante yi muy dagg-dagg. waaw yi muy dagg-daggee moom masal day gis na ko le premier. Mhm. bis boobu du sang du du julli. la deux gisu ko day sangu julli di woor bu dee woor mu woor. le trois gis na ko bu bàyyi woon julli woor kon bis yi mu koy gis lay jàpp ne bis yi mu bis bis yi ci des bis yi laab la. Hmm. loolu tamit lu lu am solo la waaw da ko bàyyi xel loolu. Hmm. kon ko bàyyi xel. ñeenti nit ñooñu lañ ki nga xam ne day boole ay bis ak ki nga xam ne dafa ëmb ak ki am baax bu baaxoo am ak koo xam door a tàmbali ñeenti jigéen ñoo ñoo am ci ci gis baax su ko defee baax it am na ay mandarga yu ñuy xamee ne jeex na dañuy wax ne ñaari mandarga la am jigéen bu baaxoo buy gis yooyu day wut wuteen wala yu mel noonu daf ci kanamam saa bu ko xoolee gisu gisumoo fendi maanaam nga xam ne deret ju yees nekku ci fendi gi jubluñ ci mbañ a tooy ndax ndox mi génn ci awra ji mën na dëkk di tooy jubluñu wax loolu waaye liñ bëgg wax mooy bu mu doon bu ci deret ju nekk su ko xoolee gis deret ju nekku ci loolu mooy fendi day jàpp loolu maa dagam laab gis ci ndox mu weex moo xam day day day xaw a tal ah loolu it mandarga moom moo gën a jot sax ci ne bërëg bi jeex na nga xam ne kon euh, ñaari yu lu mu ci gis rek day jàpp ne set. maanaam ñoom daal seen seen wëtteen. Mhm. wala seen firi doom la wala yi ñuy jëfandikoo. Mhm. fekkee ne def nañ ko ci seen kanam. Mhm. lii lii mandargaal ne set nañ mooy dañuy gis ne. bu ko euh, génnee dara du yees nekku ci. feeg ñuy gis dara du yees mu ne ci taq ci setu ko waaye saa bu ko xoolee gis dara du yees newu ci loolu mandargam set la su gisee lu weex loolu mandargam set la. ñaare yi buñ ci gis rek nañ xam ne loolu teg tegtale ne euh, donte xasatu mooy lu weex loolu moo gën a jot dañuy wax ne ki baaxoo gis ñaar yëpp bu njëkkee gis fenn fenn yi ci njëlbeenu tisbaar masalan bu mu gaaw a julli ne yeex ba bàyyi bay wàcc takkusaan waaj jot mu muy xaar xasa boobu bu yàlla dogalee mu génn baax na bu génn mu dem sangutu julli waaye day gën a tegtale jotal rek waaye ñaar yu daal lu mu ci gis na xam ne ah, mu moo tax te xaw a tal waaw ci ci mu jug rek lay feeñ ci jigéen loolu it mandargam ne set na lay tekki su ko defee jigéen nag sant nañ ko gisee baax waxtu julli wu ne na xool boppam ndax kii dag-dagee noonu wax bu setee day dem sangu kon saa bu génnee coton bi dem ci wane wu xool dara ju yees nekku ci na sangu dara julli waxtu ko kon wax bopp julli waaye nag du ci génn dañ ko daan fu na nodde rek ca saa na jóg maanaam yaatu na masalan tey tisbaar ba takkusaan waaw na xool daal balaa takkusaan saana jot na fexe ba xool fi boppam daal ci diir boo xam ne da setoon dana mën a sangu jullit te waxtu du waxtu du jàll masalan tey waxuñ ko ne fu ñu noddee rek kisaas na jóg dem xooli boppam mën nañoo noddu fekk muy togg mu nekk bu noppi añ dafa yëpp dem xool boppam wax ba trois heures loolu lépp ci biir wax mu ci digg waxtu yi léegi nag buy tëdd it na xool boppam bu xoolee boppam gis ne set na mu sangu jullit mi sa gay door tëdd waaye nag yeewu njël di soxal boppam waru ko da moom nan la déedéet nan la ba yeewu rek bu yeewoo te sant ñu noddu fa it mu xool boppam bu fekkee gis fekk na mu setit timis ak wàcc na ko bi mu ko gisee la la jàpp dañuy jàpp na jéggal nañ ko loolu mu ngi door la set mu sangu julli suba waaye daal balaa tëdd moom na xool boppam dañ naan période bi feeg mi ngi continuer rek donte day jëlal par ñaari fan man ñuy bañ a ah, ah, moom moom saabu bu saa buy contrôler boppam gis ne noonu ñu ko waxee mandarga yooyu feeñ na ci woteen wi ci def mu gis dara ju génnatul na jàpp ne fi ne nii daa kon day sangu julli julli yooyu bu ko gisaatee bàyyiwaat loolu moo tax bàyyi xel ndax am na ñoo xam noonu la sen deret mel normalu day dagg daggee prémices kon loolu it mu xel ne julli gu na bàyyi xel boppam bu julli gi tàbbee balaa waxtu wee jee daal na si na nemiku bu setee mu sangu julli bu setul mu xam ne setul bu tëdd it na ko def saa bu yewoo it na ko def waaye kenn force wu ko ne ko na yeewu quatre heures de matin di xool ba xam day julli timis ak gee déedéet loolu mu sant ko ak tey Allah ak diine yu suru euh, loolu euh, ci tënk mooy li nga xam ne ay mbir la aju ci ci mbërëg kese su ko defee danañ wax nifas dooruñ wax nag li nga xam ne dañuy tere ku ñaar yooyu dal yooyu du mat a bàyyi xel ni it c'est la deret la comme noonu ñu waxee mën naa nekk sufra mën naa nekk kudra mën naa nekk dam. ñu bàyyi xel ne nifaas mooy. mere ginnaaw am waaw moom day ànd ak doom ju génn wala doom ju judd bu nekk mu door a ñëw deret juy génn waaye du jiitu deret juy génn la ci jigéen sabab si mooy am doom léeg-léeg mu ànd moom doom ji foofu jar na leeral jigéen joo xam ne dafa am avortement te doom ji sosu ba mat bu dee ci masab maalis dañuy wax ne lépp luy tegtale ne doom doom la sax la ñu wax lépp loo xam ne xam nañ ne daa génne loo xam ne xam ne doom la woon bokk na ci lañ koy xamee bu fekkee deret la génne deret ji boo ba xalee ndox sotti ci te saaroowut xamal ne doom la woon dam nañu wax ne saa bu fekkee ne li doom la woon deret ju génn mbërëg lay doon ak kii nifaas lay doon kon jigéen ñi nga xam ne dafa dafa avortement dafa am di génn deret ci xaala boo xam ne xam nañ ne li newoon ci biiram doom la na xam ne loolu it atteb ni pas la atteb meret la waaw bu amee doomam ju ju ju ju ju ñu ni mu war a ñëwee it ba dara di jeexit atte bi ñu waxoon la mooy fan yooyu mu gis dara moom dara jooju di génn mooy bu fekkee ne moom it ab diiram du mën naa dema ñaare ñaari weer mooy li gën jàmbari waaye nag mën naa doon genn toq loolu bàyyi ko xel suñu bari na ñoo xam ne it dañuy jàpp ne suñu amee doom fii amuñ ñaari weer waruñu julli du loolu de fii seetuñu set gi nag lañ ne gën jaa bari mën naa doon ñaari weer waaye mën naa doon benn bis mën naa doon ñaare bis léegi docteur yu bari sax ñaari jigéen ñi am doom ci kër docteur dañ leen di jox garab yoo xam ne day génn benn yoon jeex yu ci bisu bis bee dellusi ñaari ñu set nañ xam ne buñ set dañu war ndax jaamu yàlla la goo xam ne ci deret ji la aju mais mën naa bañ a wér moom pelak kere moom waaye teewul julli da koy war moom li ne lu mu bëri bëri lu mu yàgg-yàgg wut romb fan ak juróom mm. loolu nga wax tamit kii du bëri ñaar waaw yàgg dopp ñaari weer waaye bu dee gën jaa néew mën naa doon gën tox jeex dañuy gis jox day am doom lay am kos néew ci deret ànd doom ji génn mu jeex ko day daal sangu ji am la julee ko woon jërëjëf mbokk yi mbokk yi ñu seetaan euh, tey liñ doon gàggandikoo lu leer la di lu am solo tamit nag dëgg yàlla di lu am am solo loo xam ne sëriñ bi indi nañu ko ay sew-sew yu am solo kon jullit bi yi ko borom sant war na koy settantal di ko xam baax ba muy alxaydu wan nifaas bërëg ak meret ñaari mbir la yoo xam ne euh, jaam bi su taqoog moom muy soxna si am na yu ko ci lislaam sant ak ku góor ki bi sayal tamit am na yu ko ci lislaam moytu lool yooyu yëpp sëñ bi indi na ko ba mu leer kon jàpp naa ne suñ suñ gàggantiku tey moom bokk da ci ëpp solo te nekk ci société bi mhm. te doon loo xam ne nit ñaa koy dund waxtu jot kon sëriñ bi lay sant baax la gërëm xëy na yokk ci rek fàttali leen leen ne deret jooju nag sobe la bu jigéen ji seete yit taq ci ay yéreem na ko fóot loolu du ko mën a sol di ñu ngi ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp yàlla barkeel liggéey bi ndax lu am solo la ay jullit dañoo war dimbalante wala taawanu alal birri wa taqwa lii ci la bokk kon yàlla na ci yàlla defal tawfeex ñu ngi siyaare ñëpp di leen baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf xam naa comme ni nga ko waxee sax deret bi ni ko waxee sax deret jooju moom nëbbu ko sax moo gën ndax euh, am nañu am na ci ñoo xam ne sax bu ñu waxtaan mu ne man daal damay fexe ba sax su ma ko gisee dama koy nëbbu ndax sobe na comme ni ko sëriñ bi waxee kon loolu mat nay fagaru bu baax a baax a baax ngir euh, sagaru sobe na te sobe ëpp nay taqoo ak moom wala nga di ko jege. kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal sa borom gën a yokk sa xam-xam te may la gudd xam ak wér mm-hmm. mbokk yi ñu doon topp tamit ci seen seen MKTV eh, li mu doonoon tey seen émission bu am solo boobu nga xam ne moom la ñuy wax gàggantiku ñu koy def ci weer wu nekk ñaari yoon tey jii ñëwoon fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër Serigne Bakke Abdourahmane ngir àndoon ko ak moom kon ñu ngi sant bu baax Serigne Abdou Khadim Bousso ak Serigne Fallou mi nga xam ne ñoom lañu àndaloon leen dig daje ci beneen Eh, émission asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam